événement lan nga jàpp ne loolu la loolu loolu loolu loolu la changé parce que moment boobu nekk nañ ci tension bu metti metti metti metti xam nga Maymuna fi mu nekk nii réew mi képp koo xam ne xam nga réew mi xam Sénégal xam ni fii dara dara jeexagu fi luy nelaw nag am na fi luy nelaw xam nga ñun ñu dëkk Kajoor dañuy wax xalu ndéef xam nga révolution wala mouvement populaire dafa mel ni lu ñuy tuddee xalu ndeef day nelaw rek waaye bu ko ngelaw lu uppee rek sa tànk mu lakk bu ko ngelaw lu uppee rek mu jógaat man jàpp naa ni tey lii calmer situation bi nga xam ni réew mi te loolu la ñëpp di souhaité man de barke Cheikhu Tidiane loolu laa gëm dama gëm ni réew mi am jàmm rek laa bëgg waaye li ma jàpp ni mooy jàmm kenn rek moo ko mën a def kenn rek la mooy sama sama xarit ma di ko assumer fii ci plateau bi ne nëbbu ma nii sama xarit la. mais mm. barke Cheikhou Tidiane ànduma moom. kan muy président Macky Sall. Mm. te su ma naree ànd ak moom ci politique yàlla bu ma gis yonent bi yow man xiyam. waaye sa xarit la. sama xarit la. Mm-hmm. bokkuñu position. mais mais mais dama bëgg ma daaneel loolu dafa am solo. Mm-hmm. dama bëgg wax ak sénégal yi. ñu xam kii wax mooy kan. waaw mais waaw mais xaaral xaaral xaaral non dama bëgg nga wax ma. Ah. bi ngeen jógee Touba. Ah. lan nga jàpp ne seen waxtaan. boobu ak seen tànk yooyu changé na ko. moom laa situation politique dinaa ci dama la bëgg a wax ne man damay assumer ni président Macky Sall jàmm laa koy yéene waaye su fekkee ni man na ma influencer ci dara ci sama engagement ci président Ousmane Sonko yàlla bu ma gis yonent bi amal xiyaam il faut loolu. kon ñi wër di fen di tappale nañ ma génne ci loolu. parce que débat boobu dafa am. dañ la commencé soupçonné. waaw ñooñu seen ab business la. Hmm. mais yow xam nga loolu. non déglu ko entre nous nag entre nous honnêtement kenn waxaguma ko déggaguma ko fenn parce que ñun boo gisee ñu ànd ak président Ousmane Sonko dañu ànd ak moom ci nawloon te mu respecté respecté ñu. ba pare nag jox ñu confiance ñu ñu mën di xalaat ni ñu ko xalaatee ñu di ko ko waxee waaye comme réew mi fii la toll. ma ni man du ma bokk mukk damay bokk mukk damay fas yéene bokk ci ñuy jóg ak lu mu metti metti di dox pour jàmm am waaye buñ doxalee tuuti di nga xam ne imaam moom fa mu nekkoon la nekk fa mu nekkoon mooy fan Ousmane Sonko la àndal programme am moo ko doy te moom la bëgg mu jël réew mi moo tax mu di ko jàppale waaye lu mu metti metti du ma tëj buntu mukk buñ ma nee kaay ñu wut jàmm ma jóg dox pour jàmm am. d'accord parce que loolu nag sama responsabilité la. kon damay wax président nga xam ni man jàpp naa ni moom xam na ni man du ma ñi koy wax naan ko éliminer Ousmane Sonko classe Moustapha jaxate ki ñooñu bu réew mi tàkkee dañuy daw bu mu déglu ñooñu parce que bari nañu ko doon wax jàppal Ousmane Sonko jàppal Ousmane Sonko tey ñu ci bari ñu nga tëdd mbuur ci seeni hôtel gisu leen tey li nga xam ni mooy dëgg président te man mi la koy wax du ma sa du ma sa du ma sa ennemi man boo pertoon nguur gi tamit foo mën a nekk ma fekk la fa mooy teggil sa tànk fi nga ko teg barigade gi ngeen barigade kër Ousmane Sonko teggi leen ko parce que xel nanguwu ko ñi ngeen jàpp ci kaso yi bàyyi leen leen te candidature Ousmane Sonko ngeen jox ko ay garantie ni Ousmane Sonko dina nekk candidat. waaw léegi gis nga loolu bu amee ci réew mi. Mm-hmm. man de lii may wax nii laa.